Thank you. dama woote woon ne leen ngeen sol yu weex ma sol yu lu ñuul xam ngeen nag dañuy jëm ci combat dañuy débat déet am ay cumukaay yi lépp dañ koy seet ba ma ko seetee a laa war a sol ma sol lu ñuul loolu rek ko waral du la leen thème bi ñu jëloon mooy vraiment naka lu ñuy def ba jël maire yi loolu du ñu jaar fii jaar fële dañ koy wax directement alors ñu ne woon lu tax ñu wax lu mel noonu naka lañ siy demee ak kan lañ siy demal dafa naa ñetti question yooyu man si la ma gis nit ñi question boobu lañ may posé saa su ne may tàmbali nag di leen wax lu leer ñun de CATB nous sommes candidats mais pour l'instant nous sommes candidats mais pour l'instant nous sommes candidats à la candidature alors li tax li tax may wax loolu parce que ñun dañu am respect si ñuy liggéey dama am respect si mbay aw mii toog dama am respect si waa AFP ñiy liggéeyal biir benn bokk yaakaar dama am respect si waa parti socialiste képp koo xam ne yaa ngi yëngatu biir Médina dama am respect si li am nag mooy nañuy waxante dëgg mbir mi ren dafa xaw a changé yi jëm ki nekk tête de liste rek la ñuy jël mu nekk maire loolu il faut ñu xam raw gàddu la ki nga xam ni nataalam moo nekk si biir affiche yi mu nekk mu diriger liste bi bu ñu gañee léegi amatul dem di voter conseil municipal di nommer ay maire loolu amatul faw donc ñu xool le meilleur profil bi nga xam ni moo mën a jiite liste waaw alors ñun hmm? waxoon naa Magic lan bu dee si photo la ñuy xool man dañu mën a sama photo ñu teg ko teg photo ñeneen loolu la ñu mën a waaw waaye gars yi loo leen gis dañ koy def si yoon ak teggin je pense que c'est extrêmement important bu ko defee militant CATB ak ñi nga xam ni dañu ànd ak ñun faaw à partir d'aujourd'hui ñu jug taxaw ndax kat mbir mi dafay nekk élection ci biir élection élection bi njëkk am mooy au niveau de benn Bokk Yaakaar parce que ñun foofu la ñu bokk faw ñu xool ci biir benn benn bokk yaakaar ki nga xam ni moo mën a diriger liste bi te gars yi bu ñu nax suñu bopp gis nga politique du làkk tubaab bu jub du sol yëre yu rafet politique mooy am mbooloo tant que ñun mënuñu démontrer que ñoo ëpp mbooloo vraiment mënuñu. poser suñu candidature moo tax liggéey bu doy waar bu xaar